borom bi ne yaa Muusa inna fiikum abdan bayna adhurikum yubaaridu ni am naa jaam bu nekk ci seen biir dafa féttërlu ne moo tay ci bàkkaaram sax ci mundu arbaina sana quarante ans mu koy def boo gisee militaire buy buy buy anniversaire soixante dix ans ne ko ndaw soixante dix ans yi bàkkaar la soixante dix ans bàkkaar vingt ans ñëw di ko anniversaire kii di anniversaire dix ans jigéen ji di anniversaire quatorze ans ci mooy yàlla loolu moom mooy di bàkkaar ba pare di ko bàkkoo Muusa gestu yuuxu ci mbooloo mi ne yaa ayyuha alladi tubaaridu allaha bilmaasiya mundu arbaina sana uxruj bayna adhurina ey yow jaamu yàlla bi nga xam ne yaa ngi bàkkaar di féttéerlu ci kanamu yàlla 40 ans génnal suñu biir ñu gis la yaatee taw bi am waa ji ne tekk kuy def xam nga xam nga li ngay def moo tax kenn du lu tudd dañuy wax rek bu ñu nee diw moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa baalu aqwaamin maa ki koy def xam na ko day toog di jam boppam xam ni moom ngay waxal waa ji toog ba ci yàgg na ci xelam man su ma génnee gàcce dal ma sama famille am gàcce sama famille yépp la ñuy bàyyi ndax li may bàkkaare nii ñaaw na ba ci yàgg jël kaalaam muur ko ci boppam sëgg ne yaa rab asaytuka arbaina sana wa ana astaghfiruka al yawma wa atubu ilayka faghfir lii yaa arhamar rahimin ne yàlla mooy naa la 40 tey jii maa ngi tuub di jéggalu jéggal ma yow borom yërmande lu mag li rek asamaan si xiin gur gur gur fa ñu taxaw dañoo taw taw taw taw ba siit Moussa ne bu kenn buuse taw bi taw ci seen kaw bu baax Moussa ne waat yaa rabbi nazala al matar walam yaxruj min bayna adhurina ahad yàlla taw na loolu la ñu bëggoon waaye gisuñu kenn xam nga Moussa nag dafa xaw a doy waar waaw yàlla taw na gisuñu borom bi ne ko yaa Moussa inni saqaytukum inni saqaytukum maa leen nandal ñu ne waaw billadi manaatukum bi ki taxoon ma tee taw bi moo tax ma taw léegi nag Muusaa nag affaire bi jaaxal ko ki taxoon ma tee taw bi moo tax ma taw hiina taaba ba mu tuubee laa ko nag xool leen ci benn heure ci benn kàddu bakkaari 40 ans yàlla jéggale ko léegi mbokk yàlla day jéggale bakkaar inni gaffaarun liman taaba wa amana wa amila amalan allahu nit ñi nag tourné di dem Moussa ne ko yàlla damaa bëgg bokk nga déy ma ko ma xam ko <laughs> moom nag <laughs> léeg-léeg ngay koo xam day bëgg xam lépp Moussa ne yàlla wax dëgg yàlla bëgg naa koo xam am naa bëgg xamoon ñëw naa ko waaye gaan daka yaa ñu ni problème temps yëpp quoi loolu jaru ko li nga bëgg am na kay objectif bi atteindre nga koy jaratul loolu borom bi ne ko Moussa sama jaam di ma mooy 40 ans ma ko toroxaluma ko mu tuub ma jéggal ko ma di ko toroxal loolu du ko def billaahi ñun ñi ñépp ci nekk am na bàkkaar booy def xam nga ni am na ku la tana waaye xam nga ko de ah man de xam naa man man aka maa xam samay bàkkaar waaye yàlla nañ ko yàlla jéggal